bonjour matla taala bëgge naa leen ziara na leen dina jox seen wàcc waaye seen yéegu waay ba am ngeen jàmm bu baax a baax seen xarit seen doomu ndey seen lënkoo bale taxaw ah at sunaalu bale <laughs> at at yaate bale waaw waaw fii lay xewee ci ci Kaolack TV waaw waaw waaw waaw xanaa neex na ah mën na dana abonné wu na di partager di commenter saa su ne fii lay xewee ci plateau bi waaw def lu ma neex def lu ma saf waaw waaw toj kaa ni pàcc li nga xam jamo daxaar yi bëgg waaw waaw lu ma neex laa def lu ma neex def lu ma saf <laughs> waaw waaw damay ñëw si. Sadio Mané eh sama gaay dégg naa Sadio daa takk jabar ko Sadio ndax na gaay yi Sadio yow booy takk jabar doo ma ko wax ah mu koy déggee ci gaay nii naa Sadio takk na jabar Sadio marié na maa xaar kenn nag benn Sadio célibataire la loolu rek laay xaar Sadio lii <laughs> Sadio mooy mooy bandi say Sadio yaay say say ah. Sadio bu ngay takk yu bu ah bi gars yi di préparé ay coupe ah gars yi di préparé yeneen ndeke Sadio yaa ngi jaar ci suuf di cog ndongoon ah di ngorowu ah Sadio dégg naa nag xale bu nga takk nii xale bu ndaw la xale bu tuuti dégg naa xale bii xale bii muuru la dégg naa xale bu yaru la dégg naa xale bu maanu la Sadio ma lay ñaanal yàlla na sëy ba barke yaa ngi si jur ay njaboot yu baax a baax a yu ay njaboot njaboot yu bare bare <laughs> Sadio yow jar ngaa ñaanal yow saajo ko jar a ñaanal nga ndax yow saajo baax nga yor nga maandu nga Sadio euh, yóbbu nga ñu foo xamante ni tey jii wax dëgg yàlla ba nga ñëw si équipe nationale ba léegi wax dëgg yàlla sant nan la gërëm na la ndax yaa indi coupe d'Afrique waaw waaw Sadio waaw comme yaa ngi dem ci coupe d'Afrique bi nag ñu lay ñaanal. bul fubal ba ci biir bul dem ba ci biir match bi di xalaat femme bi am di xalaat soxna si quoi <laughs> di di lupa bali ak yooyu di kii rek waaw ma lay encouragé ma lay gën a ñaax waaw kon Sadio fi ñu toll nii génn na ci marié euh, kii célibataire yi léegi dugg na ci marié yi quoi comme yeneen gars yi ngeen xool Sadio ngeen jaar si tànk Sadio yi ah def ni Sadio célibataire baaxut waaw célibataire baaxut takk leen jabar ngeen war a takk jabar ndax takk jabar dafa baax takk la jabar ah nekk fi di ay célibataire rek yi affaire rek yooyu takk leen jabar marié leen yéen góor ñi yéen laay waxal ah bon si tolle takk leen ah ngeen bàyyi seen caaxaan yi ah oh bu leen ma merloo ah bu leen ma wax loo de waaw bu loolu weesoo damay ñëw si euh, Mimi Touré ah at kii waa ji ñu tudd waa ji nekk Linguère rek ak <laughs> nekk Touba <laughs> Cheikh Bara xaw ma doole xaw ma Mimi Touré yooyu ah maanaam gi léegi ñu ngi toog ñu ngi ñaxtu ñoom tamit ñu ngi ñaxtu wax nañ seen doléance waaw ñëw nañ génn nañ presse bi presse bi dëkk leen seen micro yi ah, nee nañ ñoom lan manqué woon dugalaat nañ ko nee nañ état na leen dugalaat ci li si nan bàyyi élection yi yu ñu jaar si yoon ah lan waxoon manqué wut ak yooyu nan lañ ko delloo mu ture wax de Mimi Touré moo wax Mimi Touré nee na lan manqué woon nan lañ ko delloo nu jëlaat seen alal joxaat leen ko Mimi moo wax man waxuma de man bale waxuma mu Touré wax ah waaw <laughs> day leer ni <laughs> day leer di Mimi Touré nee na lii gars yi xam ne dañ ko sàccoon su ñoom nan lañ ko delloowaat mu Touré ko waaw comme da ngeen a woon ñu ne dem leen wuti waat ah dem leen ngeen wutiwaat ngeen waat yaakaar naa ne tey la délai de tey tey jii la dernier délai bi comme sama gaay dem leen ngeen waat ñu war a ràmpali bari na ñu war a dooliwaat bari na ah yi moom amul siisu quoi siisu yooyu amul quoi ñu gën la ngay siisu ah ñu gën la doo bokk ngay siisu ah yooyu noonu yooyu mën naa bañ ay ñiiñe ñiiñe comme booy nu ko daan defee taa booy ñu dàqal na ngay ñiiñe <laughs> yàqee garaawul da ngay gëm yàlla rek ah élection yi ñëpp mënuñoo bokk ñëpp mënuñoo bokk day am ñu bokk am ñu dul bokk ah bu la dàqee nag wala ñu gañ la nga nangu nag gañ nan la bu ne la doo bokk nga nangu ne jàpp ne fore nga new rek waaw kon nu nga koy def gars yi defee gars yi fore new yëpp kenn dégguma sax ñu wax de ñu fore new dégguma ñu bëri ñu si wax ah ñu naan ay état bi daa tànn ñu ko neex état bi. ñi ay pion Macky Sall la eh, ah di gars yi ñu ngi wax rek ah ma leen wax ne affaire yi fii ku bokkut da ngay gëm yàlla nga xam ne yow muy bokkoo waaw nga dem wuti ji leneen xool leneen waaw hmm, affaire doy na waar de affaire yi mënut a yomb non dama mënut a yomb sax élection yi mënut a yomb ah gars yi wuti leen waay foro leen ne waay ah waaw xam naa ne fii laay tàgg yéen di leen dox dig daje ba beneen yoon. ba subaa jàmm incha allah dina jox seen wàccuwaay seen yéeguwaay ma leen wax di rek dinañ abonné wu de partage partagé waa partagé yooyu yëpp a mën a xam ne partagé commentaire waaw waaw daal di di di seetaan na Kaolack TV ah de <laughs> ah kon dina jox daje ba beneen yoon ba subaa jàmm incha ok thank you war a man bye bye I love you.